Euh, Saliou Keita mu nekk économiste spécialiste ci lu jëm ci wàllum passation des marché publics euh, mu nekk tamit euh, directeur général bu CICES e centre international du commerce extérieur du Sénégal Saliou Keita ñoo ngi am mbégte dalal la ci rajo Rewmi FM. Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la gërëm. di la sant également si invitation bi di nuyu auditeurs ak auditrices yëpp yi nga xam ne ni ñu ngi ñuy déglu à travers euh, mi FM di wax ni am nañu mbégte ñëw di waxtaan ak yéen askanu Sénégal di ñu déglu par rapport ak ay sujet d'actualité yi nga xam ne ni tey soxal na askanu Sénégal Euh, monsieur Keita nga wax rek ci lu jëm ci euh, comme xam nga ne tey la euh, gàmmu gi mu nekk bis boo xamante ni bu am solo la ñu baree baree bari ci askan wi fenn fu nekk askan wi ñoo ngi fay dem di gàmmu ji ndax tey la samedi tey di gàmmu ñii ñoo ngi jëm Medina Baye ñii ñoo ngi jëm Tivaouane ñii ñoo ngi jëm Touba ak yeneen dëkk ban message ngay lancé rek comme tey ci bis bu sell bi. waaw ginnaaw bu ñu santee yàlla jullit si yonent bi sallallahu alayhi sallam di wax ni jamono yi gàmmu lañ nekk bu ñu waxee gàmmu di wax rasulillah sallallahu alayhi sallam di wax lislaam bi nga xam ne tey moo ñu meññ kon kilifa diine yi nga xam ne ni tey ñun Sénégal yàlla daf ñu boole ak ñoom ginnaaw yàlla ñu topp seen ginnaaw mm-hmm. ngir sunu taxawaay ci lislaam yàlla man ñu nangul suñu jaamu tey Sénégal nekk dëkk boo xam ne ni dëkku kilifa diine yépp la hmm. Cheikhul Xadim maam limaamu alaaji Malick Baye kon ñooñu dañu liggéeyal yàlla hmm. liggéeyal liggéeyal lislaam kon bu gàmmu jotee mu nekk guddi Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi ah Sénégal de suñu histoire bés bu jotee taxawaay buñ ci am rek dañ koy xep macha allah loolu moo tax tey ñuy rafetlu taxawaayu président de la république Macky Sall ba nga xam ne ni altine bi paase rek dem na Tiwaawan jëflanteeg autorités religieuses yi fa nekk yépp suñ kër Si di wax ni loolu la ñuy xaar ci kilifa muy président de la république Macky dem waxtaan ak ñoom jàppale leen ci bés ba waaye yónni ay émissaires aussi laataa le président de la république di dem gis nañu le ministre du commerce Abdou Karim Fofana sunu frère sunu xarit bi nga xam ne ni ah ni mu tàmbalee liggéey bi ci ministère du commerce dal na xel ndaxte président yónni na ko mu dem di xool di saytu dëkk yu mel ni Tiwaawan dëkk yu mel ni Medina bàyyi kawlax ndax produit yi nga xam ne ni askan bi dañ koy sol soxla lu jëm si wàllu ceeb ceeb lu jëm si wàllu diwlin wàllu suukar wàllu ciment ak farin ndax doy na ndax prix bi baax na oyof na si ñi nga xam ne tey ñooy pèlerins yi fa war a dem wax dëgg yàlla man ànd naa ak moom. agent de contrôle. mais attends rek damay wax ni man ànd naa ak moom dem nañu Tiwaawan waaye ba ñu yeggee Tiwaawan rencontré opérateur économique yi ñoom kat li ñu wax mooy. bu ñu xoolee jamonoy màggal bi nga xam ne ni vingt jour rek moo moo jàll ak tey prix yi wàcc na prix yi wàcc na ba xel yi dal na ñu jàpp ni li fa ne a ah, xel mën na nangu ko war nañu mën a jàppale askan bi loolu tamit la ñu dégg ba ñu demee Kaolack président ministre Abdou Karim Fofana wax dëgg yàlla mooy nuyu les opérateurs économiques de Kaolack ñu daje ak ñoom ci chambre de commerce bi Serigne Mboup jiital leen en tant que maire mais en tant que président de la chambre de commerce. de Kaolack de mais président de la chambre de l'union nationale également. du Sénégal du Sénégal ànd ak opérateur économique Kaolack yi ministre bi déglu leen ñu wax seen jafe-jafe yi. wax ñoom fan la ñu toll wax dëgg yàlla moo tax ma jàpp ni concertation bi nga xam ne ni le président de la république Macky indi na ko par rapport ak euh, la cherté de la vie opérateurs yi xam nañu tey que jafe-jafe yi am ci monde bi épargne wul benn réew Sénégal épargne wu ko kon jafe-jafe yaa ngi fi gouvernement bi kese mënu ko régler il faut que ñu joxante loxo secteur privé bi société civile bi population yi. waaw mais directeur euh, est-ce que ministre Abdou Karim Fofana mm, euh, le nouveau ministre du commerce est-ce que solution la ngir lijjanti euh, njëg yi njëg yi nga xamante ni tey. mënu ñoo wax ne njëg yëpp wàññeeku na. directeur beneen bi tamit même président Macky Sall moom reconnaître na ne dañoo war a am dafa war a am ay agent de contrôle. wax na ko fi ne danañu recruter. waaw waaw xam nga loolu aussi euh, état mënul nekk fépp di contrôler mais dama jàpp ni ku nekk ak fi nga ko mën a fi nga nekk yaa ngi incarner état ndaxte état c'est l'émanation du peuple waaye danga wax mbirum gàmmu mu nekk loo xam ne ñun jullit yi ñoo ko lañu ñu interpellé. Mm-hmm. kon fois bi nga am gëm-gëm bi nga am ci lislaam war na mën a tax nga bañ a def spéculation looloo tax ñu ne état bi day contrôler njëg yi par rapport ak produit yu bari mais état am na produit yoo xam ne day bàyyi mu jàll sëgg mais produit yoo xam ne dañuy wax ay produits d'appel yu mel ni sucre huile riz farine ak ciment loolu état bi da koy contrôler guddi ak bëccëg ndaxte képp ku jóg ak sa doole fu mu toll ci kom saa yoo yeewoo rekk soxla nga ceeb soxla nga diwlin soxla nga suukar léegi nag diwlin bari na façon ceeb bari na façon waaye dafa am ceeb boo xam ne ni ñun sama classe yi nga xam ne yoruñu dara amuñu dara suñu gafa dafa néew état ñun lay waxal pour subventionner pour ñu mën a jëfandiku loo xam ne mënta ñàkk. muy ceeb muy ceeb mais dafa am beneen catégorie ceeb boo xam ne ni yéen patron yi yow yéen yéen yéen sekkeen yi <laughs> yéen voilà faaleen yi mhm. ñoom lu neex la ñu bëgg lu baax la ñu bëgg ñoom bu ñu demee am nañu lu ñu ko mën a jëndee état lijjantiwul ñooñu kon état dafay xool classe bi gën a néew doole mu sibal la subvention looloo tax tey ñu ne leen. mais ah ceeb boobu noonu état di subventionné est-ce que état ñoom nguur ñoom président Macky Sall est-ce que ceeb boobu ñoom ñoo koy consommé. no pour encourager ñi. li ma lay wax ni dafa leer xam nga tey dama la ne. ceeb dafa bëri ay catégorie dafa am ceeb boo xam ne euh, sénégalais noo ñàkk ñàkk ñàkk niveau de pauvreté bi fu mu toll loolu war nga ko mën a jënd loolu nag la ñuy subventionné pour ñu mën a lekk mais nag ku mel ni xaadre euh, euh, am na moyen mu ne ah man ceeb bu ñu subventionné du ma ko jënd damay dem jënd beneen ceeb mais kooku état bi du ko subventionné diwlin bi tamit noonu. mais mais ceeb bi état subventionné am na qualité am na sécurité bu baax a baax. moom laay wax ni. état lépp loo xam ne ni dugg na Sénégal ñu koy jaay pour ñu koy lekk am na contrôle ndaxte mënul dugg te amul DIPA droit importation bi des produits alimentaire te loolu ministère du commerce Abdou foofa Fofana déjà ki fi jóge muy Assome jaata am na taxawaay bu mu si am. mais ñu bari dañuy waxoon ne dafa lajj ci ministère du commerce. lajjiwul Assome Diatta non lajjiwul xam nga contexte la rek. mais mais ñun loolu lañ ko jàppee. non non xam nga tey ñun état c'est la continuité. waaw mais ñun loolu lañ gis. déedéet déet déet mbir mi. dama ne hmm. contexte bi dafa fekk moom mu nekk fa. te ko xam Assome Diatta xam na ni du cuune aussi mais tey les hommes passent l'institution demeure tey on a un ministre ndaw la xam na taxawaayam am na taxawaay xam na fu mu jëm. te incha allah dinañ ko gën a jàppale kooku nag ak demarché bu mu indi taxawaay bu mu indi moom Abdou Karim Fofana gëm naa ni secteur privé bi dinañ ànd ak moom mën de dina am si biir commerçant yi ba si détaillant yi pour que askan bi est-ce que ministre bu am ouverture boobu la. ah oui loolu moom mën naa ko seede Abdou Karim quand même day am na ouverture te dina déglu. ñii nga xam ne ñooy usagers yi ñii nga xam ne ñooy commerçant yi ñii nga xam ne ñooy opérateur économique yi moom xam naa ko te ànd naa ak moom ñu dem Thiès. ce que wàcc sur le terrain. mais déggoo la ànd naa ak moom ñu dem Thiès ànd naa ak moom ñu dem Touba ànd ak moom ñu dem feneen i feneen gëm naa ni tey. gis nañ ko mais si marché bi. gis nañ ko gis nañ ko ba mu nekkee ministère euh, cadre de vie def résultat résultat yooyu moo taxoon président jox ko. ministère. mais ministère boobu bokkut ak bii directeur bii moo gën a. mais nañu dem en tout cas li ma mën a wax mooy duñ ko seetaan. d'accord parce que dinañu ànd ak moom taxawu ko. ba mu réussir mission incha allah euh, jërëjëf euh, directeur euh, Saliou Keita yow yaay directeur bu CICES léegi président Macky Sall fan yi dafa teg benn gouvernement indiwaat poste première ministre mais dégg nañ ko muy wax gouvernement d'attaque gouvernement de combat Euh, kan ngeen di combattre ak kan ngeen di attaqué. waaw lu ñuy combattre mooy euh, jafe-jafe ah àddina rek jafe-jafe cherté de la vie parce que tey euh, waxuñu jël combat di xeex ak askan bi waaye dañuy xeexal askan bi ngir lii askan bi bëgg mu yombal leen ci seen dund te loolu li ko indi mooy jafe-jafe àddina lu mel ni Covid jaaroon na na fi guerre Ukraine jaaroon na fi ñun lu bari dañ koy jéegaane di ko indi importation tey mu am lu ñuy wax problème de fret maritime bagages yi ñëwatuñu donc bu ñëwatul produit bi du bari te bu produit bi bariwul rek njëg li day jóg loolu la ñuy wax inflation mais bu amee inflation nag état indi fi subvention pour fexe ba commerçant yi njëg buñ ko jëndee. ak li ñu fay transport bi et tout ñu ne ah dina leen dikkee lii loolu bu fekkee ñoom dañ ko bëgg a jaay pour mën ci génn état de am lu muy génnee gafam jox leen. mais subventionné mun mun continuer. damay wax ni dama ni no mënta wee parce que jamono la rek. subvention pour jamono la rek. loolu tax tey jii boo xoolee mburu bi mais lu muy jar tey muy cent soixante quinze mais buñ ko subventionné wutoon trois cent vingt cinq lay jar. te loolu ministre Abdou Karim Fofana wax na ko mu leer tey boo jëlee ciment bi tey ciment bi ñun dañu am ñett usine yooyu am Sénégal fii ciment bi di jar soixante quinze mille francs ñu bari di yuuxu dafa cher mais demal Côte d'Ivoire juróom benn usine moo fa am ciment mais ciment quatre vingt dix mille lay jar Côte d'Ivoire Gambie bu ñu jege nii ciment mi ngi jar quatre vingt trois mille francs ko ciment mi ngi jar cent quinze mille francs cent dix mille francs kon dama ne gàcc ngaalama président de la république lu lu bon mooy ñu ney liste lépp lu président def lépp lu gouvernement def dafa am prix bu mu fi fekk nag président Macky Sall dafa am prix. président bu mu fi fekk président Macky Sall 2012 ba mu yegsee ak tey prix dara yokkut dara yokkut. non waaye ba ñu demee no man par waxum waxu siman man li may wax mooy lépp loo xam ne mooy les produits d'appel surtout mooy suukar diwlin euh, farine euh, et cetera ñun gérer nañ ko ba nga xam ne ni tey mais Covid bi moo ñëw jaxase mbir mi. waaw d'accord mais mais guerre Ukraine bi ñëw gën ko jaxase waat. mais directeur euh, gouvernement d'attaque et de combat lu ngeen si jublu si si moo yooyu ngeen employé. non luñ si jublu c'est pour ñu won nit ñi degré situation bi fu mu toll. metti na ku ko waxul da ngay wax li la neex. metti na du loo xam ne ni c'est des c'est des causes ay ay ay causes yoo xam ne c'est exogène du Sénégal kese kon dafa laaj ñu laxasaayu encore am taxawaay bu baax bu dëgër pour askan bi xam ni njiitu réew mi gouvernement bi ñu ngi leen di bàyyi xel ñu ngi leen di taxaw. mais ñenn ñi parce que tey xam xam xamul tax ñuy sax waaw waxal ñenn ci opposition. waaw ñenn ci opposition bi ñoom dañoo gis ne gouvernement bi ak yenn euh, yenn yenn yenn ministres yi ñi indiwaat dañ ko gis ne gouvernement la boo xam ne daal pour défendre président Macky Sall pour défendre troisième candidature. non déet man mii di wax ak yow tey balaa may wax sax damay ne opposant yooyu ngay wax ni tey mais. contexte dafa am ñu utiliser contexte boobu defar seen argumentaire politique pour wan askanu Sénégal président Macky Sall cuune la gouvernement bi cuune la ñooñu ñoo tax ceeb bi cher ñoo ñu ñoo tax euh, mburu bi cher ñooñu ñoo tax dund bi metti ñooñu ñoo tax inondation am damal Dalifort damal Dalifort ñi fa doon inondé di daw dem seen kër président Macky Sall bu ñëw ñibbisiwaat nañu Kër Massar da leen dégg ren kenn déggu leen réglé nañ problème bi mais mënuñu réglé lépp en même temps ndànk ndànk la ñuy def ren nga jàpp si lii. déglu ma dëgg xaaral xaaral ren nga jàpp si lii suba nga jàpp si leneen tey Isaaxa Diop ñu indi ko xale bu ndaw def ko ministre assainissement pour mu gérer la question de inondation mais gis nañ ko commencé na liggéey bi affaire yi noonu loolu mooy gestion ndànk ndànk opposition nag ils son dans le rôle loolu neex nañ def. mais gouvernement bi ngeen teg nii ñoom dañu gis ne guvernement la boo xam ne euh, non seulement du pour saafara jafe-jafe askan bi mais gouvernement la boo xam ne uniquement dañu taxaw pour défendre président Macky Sall. non man Saliou Keita su ma ul président Macky Sall kan lay défendre nañu te dëgg nag ñoom lu ñuy defendre mooy lan président Macky Sall wàccal opposition defendre ñu askan bi da barki alxuraanu karim. yan si opposition laa wax dama ne barki alxuraanu karim défendre ñu. ku ñu défendre kon seen xam nga lu ñuy défendre président wàcc ñoom ñu toog ñam parce que ñoom noonu lañ ko gisee affaire yi nañu ñam quoi <laughs> te mbir mi du loolu moo tax tey bu ñu waxee ñun Sall man suma ma défendre président Macky Sall mais kan laay défendre doon sénégalais lu mel ni ay 17 million de sénégalais ñoo xam ne ñoo ma dàq jàng ëpp ma diplôme mais tey jii jàng na je suis un cadre de haut niveau. je suis un doctorant en marché public mais tey am na ñoo xam ne ñoo ma mën mais ñooñu tooguñu fi ma toog mais su ma fa toogee c'est parce que yàlla moo ko jaarale ci président Macky Sall mu defal ma décret ma toog fii pour ngeen liggéeyal réew mi pour mu liggéeyal réew mi. Hmm. loolu mooy dëgg. mais pas défendre seulement le président Macky Sall. dama ne Macky Sall réew mi président Macky Sall laay liggéeyal ku liggéeyal président Macky Sall yaa ngi liggéeyal Sénégal te loolu mooy dëgg wax dafa am déggin nuñ koy déggee. ku liggéeyal président Macky Sall yaa ngi liggéeyal sénégalais yi ndaxte sénégalais yi ñoo fal président Macky Sall ne liggéeyal ñu mënul def lépp mu délégué ay pouvoir donc ku mu délégué pouvoir muy Salou Keita bokk ci j'incarne le président de la république Macky Sall kon moom laay taxawu tey moom laay taxawu suba moom lay taxawu ëllëg parce que man dama bokk task force républicaine les trois P mooy d'abord le pays réew Sénégal le pays moo jiitu président la république. teg si le président de la république mais teg si sama parti muy alliance pour la république. Euh, Saliou euh, yow la ñu invité ci rajo réew mi FM yaay directeur général bu euh, CICES tey bi ngeen taxawlee seen gouvernement bu yees bi mais Saliou sax euh, ba la ñuy ñëw ci loolu yéen. meilleur gouvernement. waaw non ban mooy meilleur gouvernement. dama ne gouvernement bii nii. Ah. en tout cas man j'applaudis. Ah, lu tax may applaudir bëri na ay ndaw. te ndaw yu fa nekk yépp dañu jàng am nañu taxawaay. mooy ndaw yi taxaw ci plateau yi nee nañ. ah doo doo attaqué opposition di leen man attaqué je n'attaque pas cette opposition su may attaqué damay attaqué la cherté de la vie. mais loolu lañ leen diwlin diwlin bu cher bi lay attaqué. ban damay dem wuti arme. arme boobu mooy lan subventionné prix yi te subvention dañ koy liggéey du loo xam ne dañ koy jégaan dañ koy liggéey. d' accord mais mais mais mais directeur euh, yéen voté woon ngeen fi ab loi pour wàññi location bi seen gouvernement d' attaque bi tamit dégg naa ngeen ne euh, location bi euh, directeur yéen ne location bi. te yéen te man sama baay. waaw dafa am ay këram ba muy tabax këram gisul Macky dafa dem liggéey liggéeyam dëgg bu jotee dañ koy wax dafa dem ñafe jënd ciment am jënd feeram jënd lëndëm ñëw tabax mais tey bu ñu ko waxee nii da ngay wàññi luwaas bi mais moom du am rentabilité tey président Macky Sall dem na ba xam ni li ñu war a def mooy lii nga xam ne ni les intrants yuy dugg ci tabax ñu fexe ba kase ko wàccee ko wàññi ko mu oyof bu oyofee ku tabax di nga oyofal location bi léegi nag li si des mooy nañu am yërmande. tey tey da ngay xool ni tey yow ngay jóge fii nii sa rajo bii réew mi FM nga fi jóge di fi dem Parcelles Assainies bii ngay fay cent francs taxi bés bu tawee nga génn sa kër réew mi FM nga bëgg demaat fi nga dem borom 1500 ñu ne la fayal 5000 francs parce que day taw loolu mooy yërmande boobu fu mu amee moo tax tey les détaillants détaillants yi. demi grossiste yi grossiste yi importateurs yi nañu yërëm askan bi waay. d' accord parce que état bi yërëm na leen. waa d' accord euh, directeur. yéen bi ngeen di doog di toog dafa am ñetti mbir yoo xam ne dangeen koo waxoon. li ngeen waxoon sax bëri na mais dafa am ñetti mbir yoo xam ne dangeen ko defoon seen priorité. bi si njëkk mooy euh, autosuffisance en riz. waaw maanaam fexe ba ñuy def consommer local lépp lu ñuy jëfandikoo presque muy ñoree fii. Mhm. dangeen ko defoon seen priorité léegi beneen bi affaire location bii. day fa bokkoon ci lu ngeen defoon seen priorité beneen bi affaire inondation yi dangeen ko boole woon defoon wu doon seen programme 607 677 milliards def ko seen priorité mais yéen li ngeen defoon priorité 2014 dañu dem ba 2022 ngeen bëgg koo defaat ay priorité dama ni euh, l'inondation priorité la woon def nañ si ay jéego dina continuer nekk ay priorité ndaxte boo xoolee quartier yu mel ni Médina Euh, tubaab bi ñoo ko fa defoon branchement yeeg et tout ça dañ bu doon def benn branchement boo xam ne pour ñetti nit la foofu boo fa demee di nga fa fekk trente personnes di nga fa fekk cinquante personnes màggat na ñu war a changer waat lépp ONAS mi ngi fi def lu am solo waaye des na lu bari état bi priorité yi bari na ba nga xam ne tey mënul jël yépp def ko si loolu santé bi priorité la éducation priorité la Ah, ah, dund yëpp yëpp tout est priorité parce que Sénégal pays pauvre la on est pays en développement toute est priorité loolu mooy dëgg kon boo xoolee inondation bi nga tudd wax naa la Dalifort demal nga xool waa Dalifort kontaan nañu boo demee tey euh, fu mel nii euh, Kër Massar kontaan nañu mais ren lii fii wàcc si taw musul wàcc. d'accord mais c'est normal. waaw mais yéen président euh, Macky Sall ak am nag. waaw da gëm ne du ñu ay yàlla. d'accord léegi. Euh, man damaa gis ne Sénégal yi dañu am ay jafe-jafe ci euh, ci njëg yoo xamante ni yokk na ci ci réew moo xamante ni xaalis amul ci réew mi ci réew moo xam ne ñu bari ñoo ngi jàmbat wàllu wàllum wàllum wàllum faj gi réew moo euh, am xaalis ñu dem jëli <laughs> wax leen ma ko mais directeur non li leen desees ci ay mois li leen des dama ni dëgg 18 mois yi dese président Macky Sall ci bopp réewum Sénégal pour mu mën a def passation de service ak beneen président incha allah garaaw yow Euh, non si mais non toi tu mais nan nga munee taxaw naan président de la république mais journaliste mais non attends li mais nan nga munee taxaw ne président de la république dafay def passation ak beneen président. 2024 ana moom ak Macky Sall la ñooy defandoo pré euh, euh, passation. Macky Sall. waaw mais boppam lay defar passation mënta nekk. comment ça. mais Macky war na mën a toogaat loolu laa gëm. président Macky Sall mën na toogaat ci bopp réew Sénégal. mais mën na toogaat loolu problème ñun ba ñuy falu yow ba ngay ba ngay yow ba ngay def élection da ngaa fal le président de la république Macky pour mu def un mandat de sept ans te loolu dafa dépendron si suñu constitution mu def mandat sept ans constitution bi ñu changé ko ñu ne léegi nag ku amul ku def ñaari mandat su consécutif mais de cinq ans la loolu dafa leer léegi nag xam nga benn affaire dafa am balaa ngay poser ay question ma wax la lu leer mooy que ñun président Macky moo taxaw mu wax kooku c'est le président Macky Sall jëmmam moom moom moo wax moom moo waxoon damay def cinq ans damay def cinq ans au lieu de sept ans mais gars ne ko yow mënul nekk constitution bi moo moo la jiitu moo la kawe constitution bi li mu wax loolu la ñuy def mooy sept ans def na sept ans mais président bëgg-bëggam tey mooy mu def euh, deux mandats mais bu demee tey moom bëgg-bëggam moom si boppam mais parti la bokk coalition la bokk. mais moom li mu wax est-ce que mooy taxawaayu taxawaayu. coalition bi mais maintenant coalition bi dina joxe aviam mais bu fekkee coalition bi ak ñëpp ànd nañ ak moom li mu wax mais constitution bi tam mën na sëlax loolu ne yenn ça n'engage que vous mais ñun constitution bi ñu wax mooy kan mu ku def plus de deux mandats consécutifs de cinq ans mënatoo nekkaat candidat mais moom defu ko léegi nag dañuy bàyyi. con conseil constitutionnel wax. affaire bi jarul wax bu bari. xam nga tey xamul la non dinañ si wax non dinañ si wax non xam nga lan moo tax ñu si wax. 2012 dafa am ñu bari ñoo xam ne mbirum. trois mbirum troisième mandat. vraiment directeur. Barthélémy Diaz damay tudd turam. vidéo yaa ngi fii dégg ngeen ko mu wax naan moom yebul constitution moom Barthélemy Barthélemy Diaz yebul yebul sénégalais yi di fi wàcc di def ay marche ki kenn xamul contre un troisième mandat. et puis Ousmane Sonko waxaat lu mel noonu kon dama ne politiciens yi seen i jëfu caay-caay la ñuy def waaye xam nañu ñoom que président Macky Sall constitutionnellement mën na nekk kandidaa moralement moral ban moralement politique dafa am ay moralement yi kenn xamul faut arrêter ces choses là. <laughs> mais directeur mais directeur. Euh, président Macky Sall ñu ne oui suba bu leen arrangé ñu ne moralement c'est quoi ça. moralement dina tax nga dugg assemblée nationale di foqati ay micro moralement mën na tax nga dugg assemblée nationale di di yëkkati affaire bi naan urne da nga ko yóbbu moralement dina tax ngay saaga président de la république démocratie bi am fii dafa ëpp. kon yow euh, directeur yow bu président Macky Sall tey bëggoon a déposer troisième candidature am yow da nga bokk si ñu koy ñu koy ànd ak. mais dinaa ànd ak moom par am na si droit mais troisième mandat loolu etat troisième mandat dépend du peuple sénégalais sénégalais ñooy ne a ah, constitution bi nangul na ko mu nekk candidat affaire bi jarul xeex comme ay Burkina Faso ñi nga xam ne comprendre ñu dara jarul xeex nañu téye suñuy carte mais bu ñu demee mais ñu ne oui constitution bi yow yaa ne ni mën na nekk candidat mën na nekk candidat loolu mooy candidature mais mandat bi ñun ñoo ko yore ñun peuple mais ñoo bañ affaire bi jarul coow lu bari est-ce que jar na coow. waaw euh, euh, mais directeur. sànq nee nga Barthélémy Diaz. moo ko waxoon de. Euh, waaw non man d' accord naa moom moo ko waxoon. <laughs> Ah, waaw non mais d' naa mais tamit président Macky Sall moo ne woon 2019 bu ñu ma falaatee mooy nekk sama deuxième ak sama dernier mandat. kooku kooku c' la personne du pré c' est la personne Macky Sall. jëmm moom avis personnel am la mais du loo xam ne ni groupe bi moo ko de du loo xam ne ni constitution bi moo ko wax wax bi leer nag mais est-ce que tey boo waxoon ne day def beneen mandat. président Abdoulaye Wade. Aïda Mbodj. Fantomas. bi waxoon Abdoulaye Wade Fantomas la. pare dem ànd ak Abdoulaye Wade. ma carte ma caution. pour liggéeyal Abdoulaye Wade troisième mandat. tey moo taxaw ak moo nekk ak opposition bi tey. Euh, Habib Sy. nekkoon directeur de cabinet Abdoulaye Wade. moo doon xeex Linguère. pour que Ablaye Wade am troisième mandat tey moo nekk ci opposition bi tey dama ne bu ñu nax sénégalais yi on fera jamais du neuf avec du vieux. mais est-ce que sénégalais yi danañ nangu président Macky Sall di poser beneen candidature. Abdoulaye Wade ñun ñëpp dañu taxaw ne du fi nekk candidat mais nekk euh, nekk na candidat mais on a voté ba nekkul ba deful trois mandats bu fekkee président Macky doyul sénégalais yi mais dina nekk candidat mais mën na bañ am troisième mandat. mais ñun gëm naa ni fii président Macky Sall moo jig sénégalais yi moo warut maanaam dem di déposer moo warut. mais lu tax warut. warut moo jig sénégalais yi tey le président Macky moo yóbbu suñu dimo diplomatie niveau boo xam ne tey wax dëgg yàlla kuy gor war nga jàppale président Macky Sall ku bëgg sénégalais war nga applaudir le président Macky sagal na Sénégal. d'accord euh, jërëjëf euh, Saliou euh, Keita directeur bu CICES mais yéen li leen dese laa la laaj sànq. xam nga non lu ñu wax lu ñu dese lu ñu dese bari na. <laughs> waaw tamit nag. waa mais directeur yéen maa ngi yéen xanaa bëgg leen dem ba deux mille trente cinq léegi dama ne la. mais ñun PSE bi. pour soqali Sénégal deux mille trente cinq la. waaw non dama ne. yéen dix huit mois yi leen dese wala moins de dix huit mois. léegi dix huit mois yooyu waaw. pour président Macky Sall. xam nga 18 mois yooyu man damaa jàpp ne dafa war a def passation de service ak keneen. 18 te loolu ci mooy yoon. 18 mois yooyu. waaw léegi est-ce que mën ngeen see saafara jafe-jafe yi nga xamante ni jamono jii moom moo am ci réew mi. 18 mois yooyu jafe yooyu moo tax tey 2023 ñu am budget boo xam ne ni 6400 milliards la 6400 milliards yoo xam ne ni dañu jël 45 pour cent consacré ko ci social bi. maanaam équité sociale président Macky lu mu wax mooy nañu lutter contre les inégalités sociales tey dëkk taax yi boo fa demee tey am na ay pistes de production électrifi électrifié nañu village yu bare bare bare bare côté santé bi amélioré nañ ci. des na. donc di wax ne tey. mais mais mais directeur nag at mu jot ñu jox leen ay 5000 milliards 6000 milliards c'est normal que ngeen def dara. mais moo tane président Macky bu mu ñëw luubal yi doon am amatu fi détournement yu mag yi yu amatu fi ku ñu dénk nag am na réduction de comptes maanaam démocratie lañ nekk gouvernance bi mooy les corps de contrôle ëllëg ñu contrôler mais li ma jàpp mooy jamono ñu nekkoon jamonoy Abdoulaye Wade détournement yi doon am ak président Macky amu fi léegi lii am solo ali bi ñu wax ko mooy ah année sociale bi ñu jëm année sociale boo xam ne ni pour ñu soulager les ménages soulager sénégalais yi fexe ba nga xam ne tey dinañ am benn taux de croissance boo xam ne égal à deux chiffres taux de croissance boo xam ne ni une croissance inclusive et participative maanaam la taille des enfants des des jeunes jeunes yi nga xam ne ñu ngi si réew mi parce que boo xoolee la forme pyramidale de population sénégalaise on a une population jeune jeunesse boobu warul nekk une bombe sociale mais un atout pour accompagner l' émergence loolu tax tey boo xoolee lu mel ni UCG euh, les travaux à haute intensité de main xale yoo xam ne jànguñu statistiques yi luy moo ne mooy 46 pour cent des demandeurs d' amuñu aucune qualification mais ils devraient pas être une bombe ils doivent être utile présent indi ay initiative yu baax nga xam ne tey xale yooyu tey ñu xam ne ni y' a pas de ñu ngi ñëw di bale ñu ngi ñëw di bale ñu ngi ñëw di def di di di di accompagner l'émergence te loolu moo am solo boo xoolee tey président de la république yokk na la formation professionnelle ak gën na si indi doole su jigéen ñi ñu ngi leen di jàppale def la promotion de l'entrepreneuriat te loolu am na solo si ndaw ñi pour jeunes yi président am na lu mu fi def wàllu DER mais dinañ ko gën a yokkaat loolu la ñu wax. parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite yàlla rek moo fiy def ñu ne gongo. fii ku fi ëpp làmmiñ laa lay wax nii si opposition bi ñu fi ëpp làmmiñ barki alxuraanu karim boo leen wooyee suba ñu jox leen lenge bi est ce que dañ xam xam sax fu ñu teg seen tànk tey euh, euh, seen adversaire principal bi Ousmane Sonko euh, ni mu taxawee il faut il faut arrêter de dire c'est l'adversaire principal mais ban adversaire principal mais mooy chef de l'opposition mais bu la neexee mais mooy chef de l'opposition lu tax Khalifa Sall mënta nekk chef de l'opposition mais bokk bokk teg Ousmane Sonko. Khalifa Sall parcours bi mu am. dixième bi Ousmane amu Ousmane Sonko dafa dem ci ay élections boobu. Khalifa Sall demul élection. mais moo jëloon troisième. naturellement mais na jël mais mais da lay wax tey gis ngeen am Ziguinchor. moo tax tey xoolal tey taxawaay bi mu am Ziguinchor. waaw ñu teg fa xanaa koy rafetlu ñu teg fa fu baaraam. taxawaay bi président Macky Sall am Ziguinchor boo jëlee. kaar bi sax Ousmane Sonko am ko. mais c'est normal c'est le président de la république. waaw mais kon jeex kon bul wax loo xam nga. mais la muy def moom en tant que maire. mais li mu mujjee def nii di joxe ay oto. waaw jël oto yi jëf ay couleur. Pastef te couleur yooyu moom lañ doon xeex non damay dëgg non dañuy waxtaan rek couleuru verte blanc rouge la couleuru Pastef te dama ni boo demee tey euh, ilaa kii doon wax waajooju doon wax ilaa Fuuta Moussa jóob mu ne woy gars yi vote waa Touba dañu vote lulul euh, nu mu tudd sax euh, Macky Sall président Macky Sall amul lu mu deful Touba kon dañu war a dindi sax yoon bi def ko ilaa Fouta ndaxte waa Fouta tey jooju waa jooju ba muy def euh, oto Dakar dem dikk yi def ko couleur APR couleur marron beige boobu comme ni ko doon waxee. Ah. Ah. mais Barthélemy attaqué na ko Ousmane attaqué na ko. mais ba mu amee problème ak waa ki ñoom ñoo ko jëli nga war a xam ne ni ñii gëmuñu kenn. politiciens yi ñu ngi noonu rek kon di wax ne tey président Macky Sall euh, euh, Balde oto yooyu Balde moo ko commandé mais mu tombe si gestion moom mu jël ko def ko couleur partem li nga doon bañal keneen mais Mary ñaan Niane Mary Teuw Niane moo njëkk a wax waaye saa waay ñun anaa dañu gëmb nag gumbuñu Mary Teuw Niane moo ko gis wax ba mu ko waxee saaga nañ ko ndey guddeeg bëccëg mu daw waaye ñun nag amuñu lu ñuy ragal ñun luy dëgg dañ koy wax man politique duma ma saaga du xaste ndaxte jàngaluñu ma loolu samay waajur d'abord yar nañ ma éduqué nañ ma. ña la fi saaga président Macky Sall yar nañ ñu politiquement pour que ñu bañ a saaga. mais am na ànd ak moom di saaga. donc li ma bëgg a wax daal mooy Sénégal ñun suñu Sénégal la Abdoulaye Wade abdu Diouf sengoor gouverné nañu dem nañu. président Macky Sall àlla kulli aali bés dina jot mu dem. mais mais. kii gën si Sénégal nag bu ñëwee ñu jàpp ni moo gën ñun ñëpp nañu ñaan Sénégal dem kanam. d'accord mais directeur yéen euh, dañuy faral di tuumaal président Macky Sall ka ne ko moom euh, adversaire am yépp euh, da leen di jéem a faagaagal ci lu jëm ci wàllum yoon. ba mu ñu participer du mën a participer ci élection. ku ci mel ni xalifa Sall Karim Wade Barthélémy Dias ba ci Ousmane Sonko ñenn ñi jàpp ne. mën nañ ko jéem a indil ay gàllankoor yoo xam nga ni président homme de dialogue la. le président Macky Sall est de dialogue bi nga xam ne ba mu ñëwee depuis au pouvoir ba mu yegsee il a toujours demandé ñu promouvoir le dialogue social promouvoir le dialogue politique mais am na politi am na parti politique yoo xam ne dañu gedd duñ ko def mais tey xoolal la vie la la coute coûte cher mais woo na ñëpp ñu ñëw kon euh, li ma mën a wax daal mooy président Macky gàcc ngaalaam. mais kaw Karim Wade Khalifa Sall ndax yow ànd nga ci am amnistie. non mais président Macky Sall day déglu askan bi président Macky dafay déglu askan bi Sénégal dëkku démocratie la mu ngi si yoonu boo xam ne ni développement la bien vrai que dëkk bi fu monde bi fu ne metti na mais bu ñu xoolee ñun. Euh, li ñuy wax les fondamentaux de l'émergence la paix sociale la stabilité politique loolu am nañ ko loolu du ñu nangu dara di ko yàq kon président Macky Sall tey bu ji gisee ni tey askan bi ñu ngi koy wax ci rajo yi ci télé yi ñu ngi wax Karim ñu ngi wax Khalifa Sall waaye day déglu askan bi jàmm jooju nag bu ñu ko buggee président kese bu demandé à euh, euh, l'Assemblée nationale mais ñu amnistier des faits Karim Wade Abdou Khalifa Sall ñu joxaat leen seen droit loolu mooy démocratie kon président du tëb rek wax lépp lu muy def dina déglu d' abord. askan bi mais calcul ci euh, calcul politique. ku mu neex nga analyser ko noonu. d' accord léegi ku mu neex nga analyser ko noonu beneen yéen mais ñun ñuy nekk ak président Macky Sall déglu ma rek ñun ñuy nekk ak président Macky di jaxasoo ak moom di réunion ak ñoom xam nañu yërmande bu mu am si doomu aadama. président Macky Sall dañ ko bun xatal xam na nu mu demee nekkul fii di bun xatal kenn. président Macky Sall moo lay mooy mooy ñëw bëgg a jàppale la waxtaan ak yow. yéen ñaar kese mu jàpp ni yow kat mën nga nekk une solution mais si biir loolu bu demee ba ci biir mu gis ni ah solution bi mu bëgg du gis-gisu gaa yi gaa yi kat seen taxawaay ak li ñuy wax moom bëgg-bëgg moom président bu ko indee rek coow dina am c'est le cas de Mimi Touré. président Macky Sall moo doylu Mimi def ko. kan tête euh, jàppale ko jox ko ay moyen boole ko ak ay nit mu sillonné le Sénégal. dikk ko assemblée. déglu ma rek. askan wi ñu ñuy euh, euh, euh, réseaux sociaux yi xam nañ ni mu demee topp jël say jeunes monter leen wax leen fii wax leen fii yay journaliste monter leen jàppale leen ngay wax mi président Mimi président assemblée nationale. mais loolu bu demee bu dugg si nopp président de la république président xëy na waxtaan ak moom kenn xamut nag wax dëgg yàlla Mimi ngeen dégg rek muy wax mais kenn déggul président di wax kon prés Mimi Touré bu waxee ne président moo ko ko dig diggante moom ak yàlla la. mais ba léegi kenn déggul président di ko wax mais man tamit bu fekkee sax loolu la bu fekkee li mu wax mooy président moo ko ko dig mais président est-ce que concerté wu na ak yeneen parti Benno Bokk Yaakaar bi est-ce que président concerté wu na ak euh, APR mais bu demee nag ba gis ni lii mënta jàll parce que gars yi nanguwuñu jusqu'au dernier moment lañu la euh, euh, la la ñu choisir maam mais le président maam. incarner aujourd'hui légitimité historique et politique. APR mais mais mën na leen a sonal. waaye moom mënul sonal sax boppam bay sonal. ndax nee na président même troisième mandat troisième candidature bi bokk na si ñi koy xeex fi ñu toll nii. Mimi na dem tëddi nelaw mënul sonal kenn nit da ngay gore. assemblée nationale ku démissionner sa parti tu perds. mais démissionné wul. déglu ma ma ñëw ku démissionner sa parti da ngay perdre sa mandat de député. gore président Macky Sall ba ñu ko indilee Gitangaas dafa bàyyi lépp gedd lépp dem wax ak askan bi doylu askan bi doylu ko dénk ko réew mi wax bi yëpp loolu la tey ji jarul coow lu bëri ñun ñoo ko ko jox. leen ko bëgg a nangu. mais bu fekkee ni yoon bu ñu jaar bëggul jor yu jël yoon boobu mais na gore na gore. dañ koy nangu wala du ngeen ko nangu. waaye dafa war moom jarul moom moo war a demal boppam. d' accord jërëjëf euh, directeur Saliou euh, Keita directeur bu CICES léegi opposition bi euh, gis nañ ne tey ni ngeen doon amee majorité benn bokk yaakaar ci assemblée nationale ak bii nii bokkul est ce que dina nekk assemblée nationale boo xam ne bu yomb lay doon ci yéen. bu doon sama sago ñun dañuy am majorité à l' assemblée nationale comme ñu wax majorité mécanique. waaye niveau de démocratie Sénégal moo toll ba nga xam ne ni population bi ñoo de xoolal raw nañu sax politiciens yi Sénégal on a une population très mature ñoom lecture bu ñu am mooy nañu équilibrer les forces à l'Assemblée nationale pour que le débat à l'Assemblée nationale nekk un débat d'idées un débat utile pour les pour les les Sénégalais mais malheureusement malheureusement xoolal li ñu fa gis. ñu ne assemblée nationale de rupture waaye assemblée nationale déshonorée ñii nga xam ne ni tey non c'est c'est grave. d'accord léegi euh, directeur euh, waxtu wi euh, jeex na mais benn question rek ci fi nga xam ne mooy CICES mission CICES ci lu jëm ci wàllum promotion. foire yi ak salon yi décentralisé ko ci yeneen région yi foo fan nga si fan nga si toll. waa d' abord di wax ni euh, d' abord di remercier encore président mac Sall kii nga ba nga xam ne ni tey moo ñu placé à la tête du CICES am si ñun confiance ne ma demal nga redressel ma kër gi. dafa daanu woon. redressé jafe-jafe yi bari woon na lool. Hmm. waaye bu ñu ñëwee tamit. ban moo suñ jëkkoon si jafe-jafe yi. jafe yi mooy tey on est frappé par ce qu'on appelle la vétusté de nos infrastructures lu tax may wax loolu parce que CICES entreprise événementielle la. on reçoit du monde monde ba bu ñu ñëwee dañu war a fekk benn cadre bu attrayant loolu li ma si njëkk a def mooy xoolaat organigramme bi indi benn direction chargée du cadre de vie signer ay partenariat avec des structures lu mel ni UCG et cetera pour que ku dugg biir succès nga gis ni quand taaru na muy benn. ñaareel bi mooy on est frappé par la réduction du périmètre géographique succès dafa nekkoon 107 hectares tey démb. ñu conseiller président Abdoulaye Wade conseil yu bon ba nga xam ne tey dagg nañ ko def ko ay kër au lieu de 107 hectares ñu nekk trente hectares te alors que parking dafa bokk ci événementiel bu fekkee da ngay organiser lu mel ni foire foire activité la nit ñi di ñëw nañu war a am fu ñuy gaaree loolu mooy parking. Mmh. moo tax ñu doon def espace boobu yëpp la vision de Senghor elle était très belle mais ñun suñu génération <coughs> waruñu ko trahir looloo tax. ñun ñu liggéey si feuille de route bu bees taxawaay bu bees une CICES e boo xam ne ni feuille de route boo xam ne ça s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CICES e du centre mais également de la FIDAC léegi nag il faut que ñu wane ni CICES e du CICESu Dakar kese mm-hmm. du structure nationale euh, régionale mais structure nationale la war nañu dem ñun en tant que parc d'exposition war nañu dem dans les régions signé nañu convention avec les euh, de commerce mooy les les chambres consulaires chambre de commerce ñu ngi waxtaan lu sori avec les chambres de métiers yi. Mhm. pour que ñu dem ci région yi. région bu nekk am na potentialité économique ñu xool naka lañu ñu mënee organiser foofu ay foire ak i salon. Mhm. tey war nañu dem euh, euh, Thiès région de euh, fu mu mel ni département de Mbour. Mhm. à Saly pour ñu organiser. lu ñuy wax Saly Expo parce que ku dem Saly xam na ni carrefour touristique la carrefour économique la carrefour diplomatique la bu ñu ko mënee wax. waaw mais mais est-ce que tey CICES euh, événement yi am na ay étrangers yuy ñëw. ah oui foofu laa bëgg a ñëw cest à que tey bu ñu defee loolu par exemple Kaolack war nañu organiser le salon de l'arachide. boo xoolee euh, yu mel ni Kaolack ay FICA yooyu yëpp suñuy partenaires ñu le salon euh, la foire de Kaolack donc il faut ñu dem ci région yi. la le salon des mines par exemple à Kédougou et cetera parce que mission aussi c'est c'est d'organiser des foires et des salons fexe ba opérateur économique sénégalais ñu jaxasoowu ñu promouvoir les échanges commerciaux ñu fexe ba sunu opérateur économie économique yi jaxasoo ak opérateur économique yu nekk bitim réew pour ñu renforcer la coopération économique coopération commerciale bilatérale entre le Sénégal parce que tey Sénégal ak yeneen réew ñu renforcer coopération bi parce que tey li ñuy wax ci coopération euh, diplomatique moo bari tey yeneen opportunité ñu ngi fi coopération économique. Mm. je prends un exemple Sénégal ak Maroc mais ñu ngi jëflante surtout ci wàllu religion. saron du tourisme la war nañu wane wane ñaata nit ñoo fi jóge di dem Fès tout le temps mais dañuy dem Fès jël ay bagages Maroc indi ko mais lu tax du ñu jël ay bagages Sénégal di ko fa yóbbu tey bu ñu waxee ay conteneurs yu jógee à l'étranger di ñëw. mais conteneurs yooyu bu ñuy jógee dëkk yooyu parce que aucun pays ne vivre en autarcie ñun dañu am ay produits yu doy fii yoo xam ne ñële amuñu ko. Chine amuñu gerte ñun ñu am gerte ñoom ñu war leen jox suñu gerte ñun amuñu diwlin bu doy ñoom ñu war ñu jox diwlin kon échange yooyu. loolu mooy mooy mooy kii dégg boo xoolee tey euh, euh, euh, boo demee ñoom ñu indi seen i conteneur conteneur ñu déchargé ko. Mm-hmm. parce que ñun soxla nañ ko mais conteneur buy retourné est-ce que waruñu xool ñun tamit. lan lañ siy dugal lan lañ siy dugal pour mën ko jaay foofu. Mhm. donc ñun loolu mooy mission pratiquement CICES. loolu ba ñu ko comprendre wax dëgg yàlla moo tax on a nué des dem nañ seeti représentation diplomatique yi fi nekk mooy ambassade yeeg et cetera lëkkaloo avec des services de l' lu mel ni ASEPEX lu mel ni euh, euh, COSEC pour ñu xool naka la ñu mën a ànd ñun ñëpp nekk benn plateforme pour gën a mën a e, nekk gën a mën a efficace efficient pour gunge quand même les ah. opérateurs économiques. Euh, jërëjëf directeur ñoo ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay gërëm di la fay di wax ni encore une fois émission bi. bu ñu si juumee daal. Mm. su ñun la. en tout cas di remercier encore euh, ce directeur général. di la sant Manick sama grand frère mon ami. Mm-hmm. di ko saluer au passage yow it di la gërëm di la sant si invitation bi di wax ni ah Sénégal daal la ñu joxante loo nekk benn man jàpp naa ni. yoon bi ma jël muy benn bokk yaakaar avec le président de la république mooy yoon bi nga xam ne ni tey bu buñ ko jëlee dina dinañu taxawu askan bi taxawu Sénégal ñeneen jàpp nañ ñi beneen côté la ñuy jaar ndaxte ñun yoon bu ñu jaar baaxul waaye ku nekk nga jàpp ne sa yoon baax na waaye li ma nangul sama bopp war naa la ko nangul yow it du ma wax ni man fi ma taxaw moo baax yow sat fi nga taxaw baaxul kon dama lay xeex bu ñu xeexante Sénégal du Burkina Faso jërëjëf Sénégal du Mali Sénégal du Guinée nañu def jàmm jàmm moo gën ay jërëjëf euh, directeur Saliou Keita mooy directeur bu CICES mbokk li moo nekkoon seen émission euh, pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jëre ngeen jëf jàmm ak jàmm.